bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen ak yeneen. oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di plus 1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mën mënti bëgg si njëg bu xéewalee lool Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen jox seen wàccuwaay ñu ñuy teewlu fii à travers Dakar Buzz saa su ne mbégte ak ca waxte la ñu àndal di jànnook yéen ci suñu chaîne tey nag dañoo toog ka nga xamante ni bés yi moom it coow li nga xamante ne am na si mbirum ah, choc choc nga xamante ne nii si diggante si di Diop ak benn booy bu ñuy wax Prince Fabi eh, the best bu yoroon booy bi yëpp laale si waaye moom turam desee laale lit yu bëree bëri bëri gannaaw ba ñu jàpp ba ñenn ñi jàppee ne ah, coow li coow li moom muy Baye Zale nekkoon manager Sidi Diop moom la ñuy sekkal tey waxtaan moom mu indi ñu ay leeral si li ni ak euh, tuuma yi nga xamante ne nii ñu ngi ko siy tuumal ci loolee yëpp dina ko leeral tey euh, fii si Dakar Buzz Baye Zale maa ngi nuyu bàyyi la nga nuyoon teg internet yi. Ah, ñu ngi lay fay ami mm-hmm. di nuyu sénégalais yi. Mm-hmm. di nuyu waa adduna bi yëpp. macha allah nuyu suñu famille. Mm-hmm. di leen baalu Euh, parce que xam naa ne ni sonn nañ. <laughs> dëgg la euh, parce que mais nag mm-hmm. euh, dañuy assumer. Mm-hmm. parce que ñun ñoo opté. Mm-hmm. nekk ci biir musique bi. Mm, ñun mën nañ assumer attan nañ ko am nañ mental bi. ci wax lu nekkul dëgg ak jëf ko yëpp. am nañ mental bi di ko dundee mais ñoo ngi baalu àq famille bi. di baalu àq soxna si di. baalu àq doom yi. macha macha allah loolu am na si solo Abayza laata ñuy xuus si li nga xamante ni sax mooy waral waxtaan bi sa xaajaloo ak Sidy Diop lan mu koy indi. yee nga baal ma mi mm-hmm. que wax dëgg yàlla chapitre boobu bëgguma ci wax. bëgg saa yee parce que li tax bëgguma ci wax mooy que mm-hmm. loolu am na bu yàgg. Mm-hmm. am na depuis un an. sincèrement bëggatuma ci wax. nga baal ma. Mhm. may nañ la ko comme ni ñu ko ñaanee ñu gis euh, bés yi tamit réseaux sociaux yi li nga xamante ne nii am na ci ñu siy àddu euh, di luy wutali euh, ki nga xamante ni moo di boy boobu di Prince Faby ak Sidy Diop woy bu ñu ne ku nekk naan yaa ko moom the yoroon leen moom mi nga xamante ne moo si laale mais lépp li nga xamante ne ni moo làkku si ginnaaw dañoo ne Baye Zala làkku ci gannaaw coow li yëpp moom moo ko sookale lan nga ñuy indil ay leeral si loolu. coow best. voilà je best la. Mhm. parce que day situé sama tur directement. ndax mhm. foog ma wax ko ne moom moo waral coow. Mhm. Prince Habib. man xaw ma ko. biñ may jox son bi xaw ma leen biñ ma joxee son bi ba coow li am. ci la ñuy soog a ñëw sama kër añee fa ak yooyu ñooñ ay xale lañ. mënuñu ma apporter dara. ci financièrement. Mhm. mënuñu ma apporter dara. Mhm. ci sama carrière bi may def. Mhm. <coughs> mais que man. ci sama nature. soxor ak iñaan bokk ci. képp ku néew doole rek. soo ñëwee ci man. man dinaa la mën a dimbali ci sama doole. muy financièrement su ma ko amee. te aw ko. Euh, muy sama xel. te yàlla may na ma ko. muy sama temps muy sama doole. Mm-hmm. yàlla dogal na ni nii ni que coow bi ci jug nii yëpp. Mm-hmm. Eh, jaru ko woon parce que li tax jaru ko woon mooy que mm-hmm. kilifa yi waroon wax. jug nañu wax tey milieu dafay am ay ay kilifa yu ciy nekk. te ñun milieu bi ñu nekk dafa am nit yoo xam ne mënuma ko fi nekk di cité yëpp. mais dama lay wax kenn ci sama kilifa yi. muy Ibou Thiombane doomu Jolof. bi problème bi amee. Mhm. kii maa moom moo moomul. Mhm. kii moomul man nekkuma fii nekkuma juge man li ma xam ba xam mooy Ibu ñaan na ma Ibu Combaan. Mhm. ne ma jëlal lii nga envoyé nga wax sa boy bi mu envoyé leen. Euh, retrait xaw ma ci YouTube man maîtriser ma YouTube kii ci maitrise après dina ci wax. ci YouTube bi. mais que daal man xam naa ni man lañ ñaan directement. ma maye. nga mm-hmm. man la ñaan directement. Mm-hmm. ma may ko. mais que su ma gisee mu après affaire yi di dem ci beneen tournée nga wër mm-hmm. tuuru télé yi. effectivement. Euh, di wax soo waxee ba pare man tey dama yeewu li tax ma déplacé wu ñëw ba fii xam ma mënoon ngeen ñëw kër ga. dëgg la mais que daf ma soxol parce que li tax daf ma soxal mooy que man carrière ou bañ a nekk carrière. intéressé wu ma. man man bàyyi. parce que yenn saa dañ naan non milieu bi soo ci nekkee il faut que nga bañ a tontu yenn affaire yi non mhm. man ni ma mel nii milieu bi def ma ko. Mhm. ni ma mel nii maa ngi ci sant yàlla ci yàllaam ga. sant ci sama waajur yu baax yooyu. Mhm. xam ne nii que ñoo impliqué li nekk nii ci man. mooy que li may wax dama koy wax comme ni mu ñëwee ci man. du caméra du du dara lu tax ma bañ ko mën a wax. alors tey su fekkee ni acharnement yi dafa am. ñu ñu waxee ci sens bu nekk bëgg wax ni que nii man dama nekk di pousse booy yi booy dañu am droit xam lu ñuy woowee droit. Mm-hmm. mooy nit bi même su nekkee liir. Mm-hmm. am na droit am te droit am boobu da koy respecté. Mm-hmm. da nga ko ci mën a dimbali dimbali ko ci mënoo ko ci dimbali nga bàyyi ko. te man bi kilifa yi waxee. nee naa leen naawoo booy woo leen. ngeen toog ñu toog ñun ñëpp ñu waxtaan. ngeen waxtaan à l'amiable. loolu démb la. laa wax loolu. Mhm. mais que best moo ngi wax ni que dama jël sama téléphone woo Matar. jël sama téléphone woo ko moom. Mhm. di baalu àq. billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa baalu ma kenn àq. barki Cheikh na Ahmed Tidiane te su amee nañ ko génnee. Euh, démb bi mu nekkee mhm. DTV Louras Diop sama xarit la. daf ko dafa woote en direct. loolu Louras wax ci direct bi Louras la engagé Louras sama rakk la. su wootee di baalu. Mhm. di wax ni que non plainte ak yooyu noonu. billahi lazi laa ilaaha illaa hu mhm. su best retiré man sama plainte waxuma plainte booyee de man plainte bi ma defal baalu ma ko àdduna ak alaaxira mhm. naka bàyyi boobu sax man démb lañ ma waxoon. jeudi. dem naa jeudi. foofu xaar naa ba sol woote naa gendarme bi ma woo. gendarme bi Dieng la ma wax. woo naa ko. moom convoqué na ma ci yar ak teggin. wuyu ji naa ko ci yar ak teggin. bi ma ko wuy mhm. gisuma ko. gisantewuñu mu boole woon ma ak commandant bi bi ma foree dem. Mhm. bi ma demee gisantewu ma ak commandant bi. waaw parce que dix heures neuf heures lañ ma joxoon rendez-vous. Mhm. neuf heures laa fa nekk ba onze heures. kenn recevoir moo ma dem ñibbi. léegi man. fii laa gisee Sénégal ngay jotee ay convocation tramite internet. parce que li tax mooy que man démb laa xamaat ne lundi lañ ma convoqué. mais Dieng jeudi la ma waxoon. mais que gendarme best daf ma wax tamit ma ñëw. Euh, lundi. Mhm. parce que moom gendarme la. parce que li tax mhm. gendarme la mooy que mënoo yow juger te eggagoo. di wax ni que ni non soo egg booy suñu eggee dañ leen di jàpp tëj leen mbete xar wala wala ginaar. <laughs> Mhm. te man encore une fois. taxawuma fii. Euh, ci casquette u ménageur Mandiaye fàtte naa man ndax am naa carrière parce que man carrière bi ma am nii. mooy mhm. carrière gëm sama bopp ak wax li ma gëm. Mhm. carrière bi moom ma gën a soxal carrière musicale. d'accord alors ma doy ma lay waxaat. Mhm. tey li mu wax nii yépp man booy yi suñ ñëwee biñ ñëwee sama kër ñëwuñu fa parce que dañ fa ñëw nii rek dañ fa ñëw ma woo booy yi ne leen booy est-ce que yéen a moom son bi. booy yi waatal ma ci li gën a foor jël seen téléphone envoyé ma booy bi ñuy def waa ku moomul son di ci def émission. donc booy wan wan nañ la preuve yëpp que ne ñoo xam nga man du ma man dama ne woon son bi du ci dugg. Mhm. ndax du ci wax. parce que son mhm. sama yoon nekku ci man ci YouTube lañ ma accusé. Mhm. ci bi laa naroon nekk yem kase. mais tamit bi aussi euh, li nga xamante ne may wutale Sidi Diop ak booy bi génne nga si ndax. ok waaw yow yaa nekk si waaw léegi ma ci xam nga wax du man duma wax ci ay ginnaaw fenêtre du ma wax nii di làqal Mhm. ñu ma ci nee naa ci pëtëx ci biir dugg toog. Mhm. installé wu nii. te booy bi jox naa ko feu vert. Mhm. su bëggee na ñëw dëkk sama kër. d'accord allah parce que li tax mooy. dama reculer ba sonn dama jéem a rafetal ba sonn. booy bi woy na woy bi def na ci émission. def na ci émission ak The Best. après son. après après co son bi 2019 la ma booy bi wax booy ñoom tamit nelawuñu woon. parce que li tax nelawuñu woon booy ñoo ngi doon xalaat. Mm-hmm. man li may wax nii dama koy wax boole ko ak ay mm-hmm. lii du booy. effectivement. lii lan la président présentateur. Mm-hmm. xamal li tax may génne lii. Mhm. parce que sénégalais yi yenn saa dañ leen di lëndëmal di wax ay affaire technique. di mhm. garaaw garaawlu man lu ma wax lu ma maîtriser wul. Mhm. man technique yooyu maîtriser wu ma ko yéen ñiy yor ay chaîne YouTube. kii kii géré woon chaîne YouTube Baye Entertainment. dina ñëw toog fii ma toog. mu jox leen les détails qu'il faut. su fekkee ni fen daf ci am ñu kii ko mais que lenn laay wax tey booy boo xam ne nii que génn nga way. ba ciy def promotion. def lii émission la. effectivement parce que ñu wax ko na ko booy. Mhm. ci kii nga kii ne nii li ko impressionné mooy que booy bi dafa jël ci afrobeat woy ci ngéwél kee ne nii best defar na musique bi. Mhm. musique bi nice na. Mhm. mais fii woykat buy dem studio rek borom studio bi moo lay defaral musique borom studio bi day woo ay musiciens ñu ñëw composer la musique. mais que texte bi lan la. kan moo ko moom dugguma ci parce que li tax dugguma ci mooy que duma ci sori ndax maîtriser wu ma ko. fekkee ma bi ñuy enregistré. mais que li tax ma. impli kan moo ko njëkk a aussi si ñoom ñaar. lijjantiwuma ko loolooy problème bi dama ko lijjantiwul. man xam la laa lijjanti nii. mooy que wax lu nekkul dëgg yi tramite télé yi. après di wax te man gaañooguma maa ngi dundu man nag tànk maa ngi dundu nit di ma waxal lu amul incha allah naa génn na ko li ngay wax nii du dëgg. su la neexee nga dem màkk plainte. Mhm. te incha allah. wax bi may wax tey. Euh, après plainte bi laay waxaat te mën naa nekk di wax fii wa quatre-vingt-dix ans te liñ ko wax noonu juumoo que de euh, Baye dafa mën defante man duma ma defante ku ma tooñul. Mm-hmm. booy bi nga am problème Prince Habib. Mm-hmm. demal ci Prince Habib bi nga mag moom nga réglé ak moom sa problème man am naa droit ma jàppale ku ma neex te yàlla dimbali na ma lii ma yàlla def yàlla def na ma ko te nit mëntu ko dindi. Mm-hmm. su booy bi ñëwee làqatu sama ginnaaw parce que amul doole papa mu ngi Kaolack ak yooyu. Mhm. tey ñun suñu waajur yi maîtriser wu ñu musique. dëgg ñoom seen doom suñ ko waxee kaso rek mu ne baal ma. man encore une fois best maa la ko wax billaahi la laa ilaaha illaa huwa li lu ras woote noonu ci télé bi di la ko wax ne la noo ñoo ngi jéggalu ak yooyu jéggalul booy man Baye Zal baaluwuma la àq te su la neexee nga dem Màkka incha allahu man duma la mës a baalu àq parce que amoo dëgg man munoo am dëgg ci man. soo demaatee beneen télé man mën naa dem ba Jérusalem di fa wax. Hmm. parce que am naa temps boobu. d'accord mi ngi naan ba single bi ba ko Sidi Diop génnewee donc euh, mu ngi ba mu gisee xaw ma nu ko si waxee woon na si sa chaîne YouTube bi ba ci nekkee nga ne ko da koy dindi mais dindi woo ko da ko def en privé pour que. Euh, su kii génnewee yow nga génnee ne c'est depuis. Euh, non man moom bi ma woowee wax imam laa ko tegoon. parce que boobu ci position bi mu nekkoon la imaam ndax yaru arrogance am maa ngi koy soo gisee ci télé bi alors woo na ma téléphone wax na wax bu yéew delloo naa ko wax bu yéew man maîtriser wu ma ay chaîne YouTube encore une fois chaîne YouTube bi man sama téléphone lay nekk te xaw ma studio lan moo fay nekk pour que ngay xool ay commentaire di dindi ak yooyu noonu ñi xam YouTube ñoom booy bi ko géré muy Cheikh Sall nekk sama rak hmm. moom maîtriser na loolu en tout cas bi ma woowee Cheikh. dama ne ko supprimer leen vidéo bi appel jot naa ko fu nekk boobu maa ngi woon studio di enregistré benn son ma jaay jàppoon trop mais que taxaw naa di taxaw ci loolu ba ñu ba Cheikh def tout ba demande xawma demande bi ñuy wax naan ay pour retirer clip bi Cheikh defaat na beneen demande ne nii retirer na plainte am comme plainte quoi retirer na plainte am léegi clip bi mën a circuler baat. mais que ñoom pour ñu nax sénégalais yi. best pour mu nax sénégalais yi dafay génn di wax ne que non bi ñu defee ay aspect technique ak yooyu man nit ku ñuul laa te ku nit bu ñuul bu sama bopp moom xam naa ne li mu musul gis tubaab dem ci réew tubaab yi moo tax mu jàpp ni tubaab yi. xaralal nañ lu gën a kawe ñu ñuul yi. muy wax ne tubaab yi ne kàcc lii nii cuwee euh, du ma ci bëgg sori. parce que aspect boobu maîtriser wu ma ko. ki ko maîtriser. moom dina ci wax après. voilà d'accord mais bu ñu dégloo wax ji boobu ba tey dafa mel ni que ni euh, yow li nga nekkatul manager Sidy Diop da nga nekk di ko soxaree lépp la nga xamante ne nii wala koo xamante ne nii euh, déggoowul ak moom da ngay nekk si ginnaawam di koy pousser lépp daal dangay ngay soxaree di Diop. ok xam nga tey jii ni kon mën nañ ko jël ci modèle yu bëri ah parce que li tax mooy que sooy soxaree nit da ngay fekk nit ëppale la wala mu gën la. wala nga am lenn loo nawee nit bi pour nga mën ko soxore yàlla dogalagul loolu ci man Baye Zale que li tax yàlla dogalagul ko man li yàlla war a defal gor ci teraanga àdduna yàlla defal na ma ko sant naa yàlla ci yàllaam nga sant sama waajur yi ak sama mag yi lii booy naan man namm ma dara wax dëgg yàlla namm ma dara te yoruma dara. kon pourquoi soxor. léegi lan moo tax yéen doo leen wax waa camp boobu bugguma tooñ du ma tudd tur kenn waa camp boobu. Mhm. ñoom est-ce que soxorewuñu kon yeneen woykat yi nekk ci Sénégal fii parce que yéen yéen a ngi gis chaque jour ñu acharné wu ci kaw nit kenn du ci wax dara à travers seen statut wax lu leen neex man permettre naa nit jël statut am dugal fa saaga ma na ma wax lu ko neex. parce que ma mental attan na ko. Mhm. comprendre nga. Mhm. kon pour ñoom bu ñu best bu mu laaxatu ci ginnaaw Sidi di wax lii parce que li tax lu ma wax Sidi tooñ ko. Mhm. parce que Sidi defuma dara ci situation bi waxu fi. defu mhm. mais ku wax tout yeah mais mooy wax di tudd sama tur best kon laay adressé parole bi moom suy wax di ci dugal Sidi moom loolu moom la engagé man dugaluma ci Sidi parce que waxuma ak Sidi. waxul ak man kon du ma wax ak moom kon pour quoi soxor dama la wax ne benn xale bu néew doole moo ñëw ci man. Mhm. man maam ndimbal boobu te dinaa ko dimbali ci kàttanu yàlla ak baaxam. Mhm. parce que dama doon wax ne que nañ toog ñu waxtaan à mhm. man ma foog ni kuñ porter plainte nit est-ce que jar na wax ci télévision jar ko dëkk bi daa yoon te man sam papa moomul gendarmerie. moom best papa moomul gendarmerie. su plainte day jël plainte bi jox ko nit ñi nit ñi ñëw wuyu ko. yoon tranché mais man de xam naa ne nii wax dëgg yàlla maa ngi wax sénégalais yi xam naa ku mën a ku ma mën a indil añ cent mètres mu indil ma fa <laughs> ak ak yu may soxla parce que bi bés jugé na ma ci plateau bi tëj ma te demaguma. mu àtte la ba te incha allah di ngeen ma gisaat nii may dox nii di continuer sama business parce que maa ngi ay projets yu bëri ci Mandiaye Seck mais que dama bàyyi foofu projet yi pour avancer pour wax lii parce que man su doon su yemoon fii tey ci man. Mm-hmm. neex na man encore une fois. li may wax ni nekkuma maa gën a accessible presse bi yéen xam ngeen lool. ci sama artiste bi may yor ak ci sama jëmm parce que gisuma fi lu fi ñor bañ koy màcc. mais que koo ci gis muy garaaw garaawlu yaakaar ne def na dix neuf ans ci musique naan leen non man du ma faral di wax ci presse soo waxul ci presse nan ngay jàll nan nan nga bëgg li ngay wax nit ñu dégg ko man ku ma woo ma wax nekkuma di jéem a protéger sama carrière ak yooyu parce que man sama carrière yàlla moom ko jox. Mm-hmm. mooy carrière gëm sama bopp ak mm-hmm. sama fit sama bët bii lu mu ma may sama fit dem jëli ko. dawoo coow mm-hmm. man du tooñ. mais ku ma tooñ incha dinañ coow di coow di coow ba nga yaakaar lii la. <laughs> <laughs> loolu leer na euh, mais aussi pourquoi kon best am acharnement bi ci yow en ñu ngi dégg mu naan euh, xel bu saay-saay nga yore aussi. naa loolu euh, wax dëgg yàlla duma ci tontu xel bu saay su ma ko waxee sénégalais ñoom ñooy jugé ci loolu xel bu saay-saay yor jërëjëf. mais su yaayam juróon doom bu mel ni Baye daal day fecc best sa yaay su juróon doom bu mel ni man day fecc man sama yaay daf ma ñaanal. Mm-hmm. yàlla na ko yàlla xare àjjana sama baay ñaanal ma yàlla mm-hmm. yàlla barkeelal ma mm-hmm. euh, loolu rek dafa joro sant te coobare yàlla jaam mënu ci dara gis nga li yàlla di def nit kenn mënu ci dërëm gis nga problème bi xam nga problème lan la nii man sama crédibilité moo leen jaaxal loolu indi lii non sama crédibilité daf leen jaaxal léegi dañ ne nii activé nañ ay booy ah, pour booy après génn wax ay booy yoo xam dañuy war a génn wax ne noo Baye moo ñu wax euh, pour ñu nuire euh, kiiwu Sidi image yu Sidi j'assume lépp lu ñu wax assumé naa ko ku neex na génn wax ci man mais incha allah am na ñoo xam ne du ñu amee ci man coow. dama la déggee sama crédibilité moo leen jaaxal te dina leen gën a jaaxal parce que coobare yàlla jaam mënu ci dara ñoom du ñu dem toog seeni machine ñoom mm-hmm. defar ay mille tours di commentaire di saaga man commentaire du ma ko lire nit ñoo koy capturé doo ko envoyé te incha allah li may wax ni ku ci gis commentaire ñu saaga ma bu ma ko envoyé parce que li daal bu ma ko envoyé may man du ma ko liir su ma paree nii émission bi du ma ko seetaan parce que li du ma ko seetaan mooy que wax naa li may li ma bëgg wax kon sama crédit crédibilité bii jaaxal leen dina leen gën a jaaxal tant maa ngi dund xanaa nag ma dox ba ci yàgg ñu ray ma ma dee su boobaa dinaa taxaw. <laughs> su ma mbëkkee miir damay dem jël alcool def ko ci taf ko. yee man géejewaay laa dëkk. te man su may xeex chaque jour samay droit laay xeex. samay droit kese laay xeex. man mosoo ma dégg ci coow boo xam ne nii que. man mosoo ma dégg sax coow. mais yàlla mooy def lu nit wax ñu jël ko yóbbu ko ci kii benn coow la woon bàyyi naa dem naa. ak tey coow bi. Mhm. man kenn mosuma dégg ci coow mais que suñ ma waxee ni damay xeex moom moo ko wax ci tele bi ne que non nee nañ ko na bàyyi na nekk di wax dina mës wax ba juum te mbëkk miir su ma juumee ma xam ne doomu aadama la te nit bu dul juum fii ci àdduna bi gisuma ko. mais que soo mbëkkee miir looloo tax tubaab bi teg pansement soo mbëkkee miir dangay faju mm-hmm. te su ma ko mbëkkee incha allah dinaa ko taf kon ne di xeex. Mm-hmm. Mhm, loolu tamit euh, leer na mais su ma déggee wax ji yëpp du début à la fin euh, euh, Sidi moom ba tey waxul àdduwul tudd la si lenn mais ñeneen ñoom ñooy wax di indi du mal si seen diggante di si indi yenn kàddu yi te moom waxul ba tey dara. showbiz yàgg na am dóorante da ngay dem ci kii dóor ki pour que mu ngi xuloo kii te loolu bi ma ko comprendre mhm. dama gën a dal ci bagage yi. Sidi defuma dara encore une fois waxuma. incha allah nag su tuddee sama tur ma génnaat ni man sama tuur ku ko tudd wax ci loo ci warta wax ma génn wax ak yow li ma war a wax moom moo ciy dóor di moom dóorantekat la parce que li la dóorantekat la seytaane mënta weesu. nga taxaw ne Mandiaye Seck war nga xoolaat sa entourage ak yooyu. loolu xam nga yëpp seytaane la. Euh, waaw mais cela veut dire que ne ba nga nekkee manager Mandiaye dafa am yeneen jikko yu mu feeñal yu néew doon si moom. incha allah Mandiaye maa ngi koy nuyu. Mm-hmm. ku baax la ku yaru la comme ni ñu ko waxee dëgg la. Mm-hmm. loolu la ma wonagum baax ak yaru. maa ngi liggéey ak moom matagul cinq mois. te sénégalais gis nañ jéego bi mu commencé di teg <coughs> parce que man du demee dara demi mesure man su ma bëggoon dara ci musique mm-hmm. du ma dem di jëli Mandiaye pour ménager ko parce que Mandiaye amagul xaalis. Mm-hmm. amagul xaalis mm-hmm. mu ci yoon di dem. mais que man dimbali nit ngir yàlla ak yeneen bi daf ma neex. te incha allah dina tegu. Mm-hmm. fi ma bëgg mu tegu. Euh, moom moo ngi wax ne que dafa yor ay son Mandiaye ci page YouTube am. loolu moo gën a sonal Mandiaye. te maa ngi koy ñaan mu supprimer ko. son parce que Mandiaye ci tonalité bi mu doon woy. dañ ko fa woyloo rek mu woy fa moo tax sénégalais yëpp dañoo intoxiqué Mandiaye ba sénégalais yëpp jàpp ne Mandiaye mënul woy te Mandiaye mën na woy mais problème gaam la amoon parce que ñi ko yor moom mii yoroon ko nekkoon directeur artistique am mm-hmm. xaralawul mm-hmm. est-ce que tey ingénieur de son yi may nekk di liggéeyal du ma leen tudd sax wax dëgg yàlla di leen manqué respect mm-hmm. di ci teg best incha allah na supprimer li am 3 millions vues 4 millions 19 milliards dimbali ma ngir yàlla nga supprimer ko parce que daf may pénaliser ci sama liggéey kilipu Mandiaye bi def quarante mille vues man à partir de morceau boobu te morceau boobu dañ ko jëlaat paroles yi changer morceau bi def ko mbalax falaa laa commencé ak Mandiaye. Mhm. deuxième bi mooy da ngay xaar mhm. bi ma def bi ma génne nii démb. Mhm. moom laa génnewaat te best mënuma defal faveur bu gën a ngand faveur bu gën a ngand mooy mu defal ma faveur génneel ma son manjaay yooyu cak cak giri cas cak cak giri cas loolu du sama musique man na ko génne bëgguma ko. mu deñ na deñ. mooy appel bu muy lancé best la loolu leer na naan laaj si sax xalaat ci li nga xamante ne ni best xam la na ko ci Sidy Diop que ni euh, jeune talent yi nekk fii yëpp tey ji Sidy moo leen raw ndax génne na ñaari album dem na lu tollook euh, tolloog 24 pays ah def na deux fois aussi grand théâtre lan la ñuy mën a wax si loolu sant yàlla ci yàlla am ko loolu dafa firni laat samay compétence man Baye Zall te Aba da doon wax Aba no stress dama mës a setaan ci TikTok am mu wax ne que Sénégal soo defee lu baax il faut nga waxal ko sa bopp. Mm-hmm. jël naa témoin sénégalais yëpp ak presse bi kan moo ko def loolu man maa ko def man maa yoroon Sidy man maa génne premier albumam ak doomu Jolof. Mm-hmm. maa def premier grand théâtre bi. Mm-hmm. maa def deuxième grand théâtre bi ci la bàyyee. maa ànd ak moom ci tournée européen yooyu tournée nationale yi. est-ce que dégg nga ma bu baax li may wax nii. du ñaari album benn album la ak benn cinq bonus track parce que li muy def li muy wax maîtriser wu ko. ndax fekk ko fa est-ce que dégg nga ma bu baax li ma la wax. wala déggee daal sa liggéey lay ndamoo. man sama liggéey euh, mën na ko sama liggéey ak liggéey Sidi. ak waaw parce que ak ak tamit waa cinq étoiles. Mm-hmm. ñoom ñëpp dañ ci nekkoon di ci liggéey. ba mm-hmm. di tegg fi mu teewal. Mm-hmm. tey Sidi fi mu nekk nii ci standing bi yéene nañ ko te yàlla na fa pour ma wax la ne aspect seytaane yooyu tey di nga jël Sidy dóor ko ci musiciens yi nekk Sénégal yëpp parce que seytaane waxu seytaane la yow yaa raw kii même soo rawee bàyyil nit ñi waxal na ko moom loolu du waxam te suba mën na yor beneen artiste. Mm-hmm. parce que tey Mandiaye la yoroon démb tey mu yor Sidy suba mën na yor Ouzin kon na xam ni muy waxee ak fi muy teg tànkam parce que li tax mooy que moom comprendre li ta comprendre liggéey jàmbur kenn du ko ndamoo te li ma def noonu nag lancé naa leen défi. Mhm. te loolu ci espace bu deux ans laa ko liggéey dégg nga ma. parce que man samay baax baax maa koy waxal léegi sama bopp duma ma xaar ku ma ko waxal parce que lu bon rek lañ lay waxal man lu baax li may def maa koy waxal sama bopp incha allah kon euh, na dem liggéey li ma liggéey noonu ci Sidi. Mhm. ba yóbbu ko 23 date yi bés dafa mës a dem Europe Côte d'Ivoire la mës a dem bés musul dem Europe. Mhm. na jéem a jël yóbbu waat ko Europe na jéem a jël Sidi génneel ko ñaari album na jéem a jël Sidi teg ko ci beneen niveau niveau bi Sidi nekk nii na ko yóbbu ci beneen niveau parce que niveau bi mhm. ñun ñoo ko liggéeyoon. seen liggéey la kon bu mu ko baaxoo. d'accord voilà. Euh, Bayza li nga xamante ne nii moo jot a xew nii yëpp coow lii yëpp ban jàngat nga ci jëlee. jà jàngat bi ma ci jëlee mooy que nit bu bon ak seytaane ak wax lu nekkul dëkk xam nga alxuraan dafa wax ni que suñu génnee àdduna. keroog yemee xiyaam ñun ñëpp dañuy taxaw te loo jëfoon rek. dina présent waat. dina ñëwaat ci sa jëf yi. alxuraan saga moo wax loolu loolu kenn mënu ko weddi. mais que dañoo toll ci jamono joo xam ne loo waxoon rek. mën na ñawaat bes nee na dafa détenir ay enregistrement ci man. Mhm. benn loolu rek. professionnellement jëfu lâche la parce que li tax ma jox la misaalu yomal xiyam léegi loo waxoon fii. Mhm. da koy waxaat parce que maa ngi nii di wax ñu may filmer mhm. wax naa ko ba pare temps bi romb na. Mhm. sénégalais suñ koy jot fekk boobu tëddi naa sama kër. kon yomal xiyam misaal na foofu. Euh, loo xam ne ni que du yëfu professionnel man iPhone laa yor. du enregistré kenn man dama ruus di wax ak nit di ko enregistré dama ruus. su may wax ak kilifa man damay jël sama téléphone ma bàyyi ko fenn pour dem wax ak moom parce que fii jamono bi toll la te moom dafa yaakaar ni professionnel la du professionnel li ñu lay njëkk a nekk yëfu lâche ngay wax ak nit di ko ñaan jekk di ko enregistré heureusement ba man du ma waxkat bon te maa ko jox autorité neen audio yi te son booy bi ngay wax yow du Sidi du kenn yow yow yaa ko def yow yaa def ak booy bi émission te dinaa leen jox morceau bi. jox leen émission bi ci waa xanaa ku ku moomul sa son loo ci defee émission lan nga ci defee émission yow nga toog ci ginnaaw di yëngal sa bopp ak di kenn xamul li ngay def noonu ba pare nga taxaw bëgg rey sénégalais yi nekk di wër di wax wala da ngeen foogoon ni nii man duma génn di wax wala da ngeen foogoon dama gaañu gaañuwuma maa ngi dund te làmmeen du lekk moromam te ñorul continuer leen di saaga di def lu bon di wax intéressé wu ma. mais incha allahu tant maa ngi dund yor sama bakkan dinaa di génne di waxee nu ma saf ñoom ni ñu waxee ma waxee nu ma saf te xaaraat naa mille cinq cent personnes yu ñu fay pour ñu wax man Baye xaaraat naa loolu. loolu yëpp am nañ te ñu ci. ñun ci milieu lañ nekk mais milieu showbiz bi dañ ne du diine du lislaam man ci diine ak lislaam laa koy teg parce que man dama am ngor man defiyee naa ko. quiconque ci musique Sénégal kenn maa ger ne ma waxal li nit ñemewul loolu sooy ñëw di ma ger si mm-hmm. sa kër ngay jógee ak location war ko fay mais soo ñëwee sama biir kër nga may fekk est-ce que dégg ma mm-hmm. kon noo may gere te yoruma dara billaahi wallaahi wa mm-hmm. yàlla moo bëri sutura rek kon tey milieu bii ñu nekk ñu bëgg ko def jëf yu bon euh, man vraiment euh, méttiwu ma mais que man dinaa ci jël samay matuwaay parce que li dinaa jël samay matuwaay mooy lii moo koy faj te dafa am nag ay kilifa yoo xam ne mën nga taxaw ci tele bi wax leen wax leen du n'importe quoi ñoom duñ génn man egguma foofu man maa ngi nii karaguñul kukku laa yor nekk booy bu ndaw di sol tubéy bu wow di nekk ci dëkk bi di dox comme ñoom. Mhm. te awma sens interdit ci àdduna bi mën naa wax lii génn fii dem taxaw fu ma neex kon damay waxaat rek ci sama dernier kàddu mooy mhm. ki moom son ak ki moomul ki njëkk a woy ak ki njëkkul woy intéressé wu ma. te àtte woo. non man maa ngi far ci booy yi léegi engagé wu naa ci booy yi man ci ñoom laa far te dinaa ànd ak ñoom ba suñuy dee ñu deewandoo man du ma workat te ku gëm sama bopp laa démb dama toog di wax ni nañ leen waxtaan à l'amiable parce que dafa am koo xam ne nii mooy investir xaalisam best du perdant bi siri du perdant bi ki investir xaalisam moo ci gën a am lu ko naqari mais best dafa crédibleul am na problème bi ak Bambali di ma wax ni man maay woo Bambali di ko wax lii Bambali su ma déggee na génn wax. woo ma ba mbaali téléphone. pourquoi moom à chaque fois mu ne Baye Zal Baye Zal que du waxkatu dëgg te Baye Zal Baye Zal bi moom nee na du reculer du kii euh, man dama ko waxoon benn wax bu am solo. man soo ma tooñee. Mhm. fu jenn jàmm yenduwul bu ma fa fanaan te soo ma menacé ma waxaat la expression bi ma doon wax su ma gisee dëj ak ngénte nii damay dem ci dëj bi. Mhm. est que dégg nga ma bu baax li may wax. Mhm. te ba pare jël entièrement samay responsabilité wéeruma ci kenn yaakaaruma ci kenn pour que mu may dimbali ci wàllum yoon yoon day téye ki def mais que comme que gendarme best génn na ba ne ni incha allah dinañ tëdd kon nag maa ngi lay xaar pour yow nga tëddal ma kaso loolu loolu laay xaar baysaal baysaal bi muy wax su génnaatee wax parce que nag man dama am yeneen affaire yu may dem di def. Mm-hmm. leeral bi may mën a def nii son bi mosuma ci wax tey laa ci wax naa la jox émission wu best bi mu taxawee di def. Mm-hmm. ak booy bi ñu bind euh, prince Habib bi déedéet Waly xaw ma lan Waly Dieng. Mm-hmm. def émission trois minutes booy bi taxaw woy woyam loolu ndax témoin la sénégalais yi laaj ku taxaw ci télé yëpp di mbele leli leli leli yow nit ñaa ngi détenir ay information waxuñu. yow nga jor yow amoo information di continuer di wax. Mhm. kon tey jii nii nii man duma ci débat dama leen di jox émission bi best def ak booy bi. Mhm. ci morceau bi après yi des na yeneen yoo xam ne incha allah dina génn. Mhm. après suñ demee lënd ci yoon après ñoom ñu xool ndax ñoom ñoo moom yoon walla yoon dafay nekk pour nit ñi te nag li may wax ni encore une fois. daf ma engagé waat man. Mhm. Baye Sall c' est en dehors de Mandiaye c' tout le monde di wax ne noo Mandiaye dafa génn ay woy clash ak yooyu. amul droit clash ku ko saf dof mënta weesu direction artistique dafa am loo xam ne aspect artistique artiste bi la ak directeur artistique am aspect commercial la manager yor man yoruma Mandiaye ci direction artistique am. Mhm. dafa am directeur artistique am moom moo koy xool fan la koy jubalee ci woy dof mënta weesu li muy wax noonu naan ñu ngi lay influencer ngay def lii ngay def lii si manjaay soo ko neexee nag classe ku ko saf. loolu tamit yow yow lañ ne yaa ko sa euh, déggoo li mu la wax assumé naa ko garaaw classe manjaay ngir yàlla classe is est-ce que comprendre la. Mm-hmm. yi ñuy def noonu di ceeñ ci ak yooyu. Mm-hmm. man manjaay su amee ku mel ni Baye Zal dafa war a dugg ci ndégam di fecc parce que man liggéeykat laa te ku gëm sama bopp laa. Mm-hmm. is moom mu ciy tudd ak yooyu noonu moom xam na is is moom dina génn mu waxal boppam parce que nekk nekkuma fi pour waxal kenn mais que incha allah fu ma waxatee prince Habib bi man maa koy waxal désormais man nekk naa ndeyam ak baayam parce que damaa làqatu wax ba sonn ne déet wallahi azim billahi lazi laa ilaha illa huwa booy bi musuma jël engagement ci moom tey bi ma yeewoo appel bu ne laa gis sama téléphone ñu ne ma seetaan nga DTV man leen seetaan ma ko dama doon nelaw Yves envoyé na ma message pour ñu toog ak best man nag man du ma ak best ñaareel mbir mi euh, bi ma yeewoo ni ma ne nag trop c'est trop xaaral ma génn wax ji nekk benn të tëgg nënd ak semin sénégalais nag suñ dofee ñoom. xool gis nen ne lii orange walla ginaar. loolu ñoom la. mais que booy bi daal xam naa ni génne na woyam di woy best toog na ci ginnaaw di yëngal bopp. ñu te ku ku génn way na xanaa nag yaay dem émission nag def promotion wala ah loolu kon euh, Dakar. nañ ci def nañ ci def inter nañ ci def nañ ci def ñoom. Mm-hmm. seen liggéey bi ñu ci war a def. Mm-hmm. tey tey dama indi woon Cheikh. Mm-hmm. pour mu wax ci aspect YouTube bi. mais du ci wax. xam la moo tax. dama koy wax mu jël données jox leen ko. dama koy wax mu jël données yi jox leen ko. Mhm. parce que li tax mu jël données yi jox leen ko données su leen ko joxee yéen a gën a xam YouTube di ngeen xam lu ñu demande bu dem ak retrait. Cheikh mu ngi may ñaan cinq minutes mhm. kon dinaa ko may cinq minutes moom mu mhm. wax parce que li tax moom muy wax. parce que dafa am loo xam ne nii tamit man moom ma ko. am na loo xam nit bi moo ko moom. voilà kii mooy Cheikh donc moom moo géré YouTube bi. Cheikh ñu ngi leen nuyu dalal la jàmm ci Dakar Buzz bàyyi la nga nuyoo d'abord. waaw salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna. Mm-hmm. maa ngi leen di nuyu ñëpp ku ci nekk si turam ak sandam mm-hmm. te di rafetlu bu baax jotaay bi. Mm-hmm. waaw rafetlu naa ko loolu bu baax. macha allah jaajëf Cheikh euh, mbirum YouTube bi lu ñu siy wax mbirum retiré na retiré wu da ko def privé da ko lire lan yan leeral nañu si indi yow mi nga xamante ne ni yaa ko géré yow mi si sa xel màcc. waaw point boobu damay sawar pour wax ci mhm. encore une fois. Mhm. comme ni ma ko waxee à la télévision. Mhm. parce que YouTube mën naa ne seen techniciens yi fi nekk sax. wala boog seen youtubeurs yi fi nekk. war nañ mën a comprendre concept bi may wax muy content ID. content ID dafa nekk concept boo xamante ni ci YouTube. pour droit d'auteur la. bon man son bi. dama ko jot il presque un mois quinze jours ci ginnaaw wala sax deux mois je peux dire. Mm-hmm. bi ma ko jotee bàyyi mm-hmm. envoyé ma ko ak ñetti photo mm-hmm. ne ma Cheikh booy bii de dañ ma ko envoyé léegi ni ay son pour ne ma naa ko promouvoir te kii xaw ma ko sax mais comme que euh, sama page bi bàyyi entertainment bi gëj nañ koo alimenté su ma sañoon nga montage ko nga dugal ko foofu en attendant chaîne bi commencé dox le temps li may liggéey ak ma njaay sotti ma jël après données yooyu ñu dugal ko dugal ko fa bi ma waxee loolu man it ma def loolu ma jël son bi. Mhm. montage ko dugal ko YouTube. Mhm. bi son bi commencé daw ñu dem ay deux semaines après. Mhm. moom mu ne ma Cheikh kii bi def ko euh, def ko privé. dafa ma njëkk ne sax supprimer ko après mu ne ma non def ko privé parce que booy bi mën na ko soxlawaat. ki ma joxoon son bi peut-être mën na ko soxlawaat. mais kon def ko privé wala boog nga supprimer ko. ma ne ko non comme bàyyi comme que kañ ay données ma jaay moom nga fi war a def nañ ko supprimer moo gën. parce que comme que ma jaay ay données dafa a ñëw dugg ci chaîne bi. artiste bi nga xamante ni moom moom moom chaîne bi Mandiaye Seck l'officiel la chaîne bi war a doon. Mhm. kon bu fekkee Mandiaye Seck l'officiel la war a doon ay doone Mandiaye kese moo fa war a nekk warul am mhm. beneen artiste boo xamante ni dafa war a nekk. ñoom ñaar mhm. ñu def loolu. léegi son bi biñ koy dugal chaîne bi dañ ko protéger par content ID léegi son bu fa xas ba dugg rek beneen son buñ ko son bi ko dupliquer automatiquement dañoo am deux options la première en est que YouTube mën na bàyyi son bi daw. mais revenu bi di versé wu ci ñun. Mm-hmm. wala la seconde option mooy YouTube da koy supprimer automatiquement. Mm-hmm. man maa jël deuxième option bi nga xamante ni euh, paramètre ko ci chaîne bi mooy YouTube da koy supprimer automatiquement. Mm-hmm. li tax ma def loolu mooy parce que dëgg la soxla nañ xaalis mais visibilité bi aussi tamit lañ ci gën a soxla parce que vue bi bu tasee. amul sens. damay bëgg suñuy vie di dajee ci benn plateau. ci suñu chaîne mu fay daje. looloo tax ma def loolu. léegi bi ñu doxalee ba à un moment donné. Sidi. Mm-hmm. ma koy nuyu de passage ndax li tax ma koy nuyu sama frère la maak moom sekkuñu lu ñaaw. Mm-hmm. bi ñu mujjee toog waxtaan ak léegi yàggul. Mm-hmm. xam nga. léegi son bi moom mu clip ko ñun yëguñu ci dara surtout ma man yëguñu ci dara. bi mu clipee son bi jël ko ñoom ñu dugal ko ci seen chaîne. bi ñu ko dugalee seen chaîne automatiquement content ID bi détecté ko. ce jour là jour boobu c'était le 10 janvier 10 janvier boobu képp ku dugaloon son CD bi même ñi ko xamante ni dañ koo jël replay ko. Mhm. même clip bi même ñi nga xamante ni dañoo jël son bi euh, jël audio bi kase montage ko ak ay sax. Mhm. ñëpp la YouTube supprimer seen contenu. seen contenu amul ku mu bàyyi. te image yi di ngeen ko gis léegi dugal naa yëpp. Mhm. mooy bii nii nga xam ni yéen a ngi koy gis mu am continue seen yi yëpp. seen yi yëpp ñi nga xamante ni gisoo turu seen yi sax ñooñu seen seen YouTube da koo tëj. parce que ça la prouve que ni ñoom dañoo jotoon am ay droit d'auteur moo tax YouTube tëj seen chaîne. mais ñi nga xamante ni ñoom seen chaîne tur yi ñu ngi affiché YouTube tëju ko mais seen chaîne mi ngi en source parce que droit d'auteur boo ko amee. Mhm. il suffit nga ci am ñetti rek YouTube day tëj sa seen automatiquement. d'accord. léegi noonu la demee. loolu mooy mhm. content ID. Mhm. léegi son bi ne dañ ko protégé woon par content ID loolu moo tax clip bi ba mu duggee son bi euh, YouTube détecté automatiquement supprimé ko. Mhm. léegi bu suppression bi amee GBS dafa toog ne ñoom ñoom ñoo toog xam nga tubaab bi def mhm. ay clic ak ay kalak mhm. euh, revendiquer contester ba YouTube joxaat leen dëgg ne verdict bi ci ñoom la wàcc côté boobu aussi tamit dama koy leeral encore une fois son bi clip bi bu dawaatee bu dawaatee man nag xawma ñan ñoo ci ñaan njëkk mais mën naa ci benn tour boo xamante nii kii jëm ji ruus na jëmm jooju trop muy Ibou Thiombane ndax chaque instant bu ma doon woo boobu sax man maa ngi woon sàll mu may woo chaque instant ne ma seex loo jàppoon loo jàppoon nga bàyyi ko nga dem parce que nit ku nekk tamit daam loo koy rusee. Mhm. te lii dafa urgent. Ibou Thiombane mhm. ak nit ak ay yeneen nit ñu ngi may woo di ma ñaan. donc dama bëgg nga dem nga régleel ma lii léegi nii. Mhm. nga fexe content ID bi même bu fekkee ci kilibu sidi bi rek nga koy dindi nga dind ko foofu nga bàyyi ko mais yeneen ni mën nga ko bàyyi moom mais boobu mën nga ko dindi foofu. man ci guddi gi. ay une heure quarante neuf bu ngeen gisee message bii nii bi ma def par la présente je re je je je retire ma ma réclamation des droits d'auteur ngeen gis urlu bii urlu bii moom mooy bu siidi bi urlu bi la. léegi une heure quarante neuf mi ngi nii heure bi da ciy affiché laa def envoi boobu bi ma ko envoyé ñu xëy ci suba gi la lendemain bi à dix huit heures vingt quatre. Mm-hmm. YouTube clip bi daaw. léegi je baisse encore une fois moom. Mm-hmm. xamul dara. li tax ma ne xamul dara mooy ba pare day wax ci loo xamante ni maîtriser wu. mu ne am na loo xaman ni ñoom ñoo ko njëkk a def ci Sénégal muy la fait que ni YouTube mm-hmm. jox leen dëgg ba pare clip bi mm-hmm. amaat continuité. Mm-hmm. mais ana youtubeur yi dañu nañ nañ nañ nañ reposté wax nañ wax dëgg bi clip wala son bu mu mënti doon. youtube bu xasee ba lancé la boo ci amee droit d'auteur ba youtube supprimer ko. nit ki bu retiré euh, réclamation am bu ko retiré. youtube dala koy delloo selon fi mu yemoon. mu nekk continuité. donc moom loolu la gis loolu lay wax. mi ngi mel ni tey ma fekk la nga defar sa bool. Mhm. ba pare. Mhm. war koo lekk. Mhm. di nga xëccoog sarax. mu ñëw jël ko ne moo bool bi. sarax ko moom ngeen ciy xëccoo ma fexe ba xam ni yaa am dëgg. su ma lay joxaat bool bi dama la ko joxaat ak ni mu meloon. parce que yaa ko moom yaa ko war a lekk. noonu la demee. d'accord donc moom bu toogee ne ñun loolu c'est la première fois ñun ñoo ko njëkk def Sénégal. foofu waxul lu am waxul dëgg. te encore une fois comme li may waxaat man The man musuma koo xam sax ndax li tax ma ne musuma koo xam mooy. Mhm. moom commentaire am sax premier sortem boo koy lire commentaire yi ñu ci bari dañ naan ah kon kii mooy The Best primo ñu bari xamuñu ko. Mhm. segundo moom dafa toog ci aar gis nga aar kenn du ko forcer wala boog nit ñi xam la nit du ko forcer. ça mhm. doit venir naturellement nit ki da ngay liggéey say résultat moom moo lay propulser mais pas. ngay toog di dal ci kaw nit wala wala leneen ak leneen. Mm-hmm. moom The Best def na théâtre def na comédie musicale waaye na lu nekk def na ko te Sénégal ba tey mënuñu koo bëgg ndax moom sax il n'est pas bëggable ci formam ci présence am physique non sérieux mm-hmm. dañuy waxtaan mais moom yow meloo ni noo xamante ni nit ñi tey mën nañ la naw. Mm-hmm. mooy li sama benn grand waxoon rek ne gis nga nit ki soo melul ni xama ni nga xamante ni nit ñi mënuñu la ci naw. da nga war a comportement boo xamante dafay correct. mais pas boo toogee audacieux naan non booy sama label bi bii nii lii nit ki da ngay simple la simplicité lañu wax. Mhm. point boobu noonu bokk ci YouTube bi man ci point boobu loolu laa amoon lu ma ciy su lu suñu. macha allah ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax Cheikh si leeral yi nga xamante ne nii indil nga ñu ko ci point boobu nga xamante ne mhm. bëri na lu ci am donc jaajëf si leeral yi euh, Baye Jean lan nga ñu tàggatoo. waaw <coughs> ñoo ngi tàggu Sénégalais yi. Mhm. baalu àq ñëpp quoi surtout sama famille ak sama ñi may liggéeyal. Mm-hmm. ñi may liggéeyal ñoom Alsaan ñoom Baye Gueye. Mm-hmm. ñoom Laat Is Ahmed Niang Ndekki Banjaay tout le staff El Pocho. Mm-hmm. parce que ñoom ñëpp dañuy am lu leen naqari. te suñ sañoon du ma génn mais dama leen am lu wax leen lu leer am na loo xam ne yéen yéen a ko moom am na loo xam ne man maa ko moom. li may def nii man maa ko moom. te dinaa ko di defaat. su jaree defaat. encore une fois may waxaat benn wax. Mhm. boo xam ne euh, téye na ma fii euh, moom ci Sidi lay utee coow. gëstu waaw ah, moo ko ëpp coow na bàyyi turu Sidi su fekkee dafa jaay son bi. Mhm. moom xaw ma lu mu demee da ko jaay Sidi. Mhm. Sidi deful dara moom moo def. parce que moom moo cuune. te man euh, wax dëgg yàlla. Mhm. wax ji nii may wax nii daf may tiis parce que di war woon bokk ci histoire bi parce que li ta war woon ci bokk mooy. Mhm. pour ma gën ci nekk en l'aise te li may tëjee nag mooy. Mhm. best Lura su la woowee téléphone devant tous les sénégalais wax la ne la. baalal parce que yow xamee nañ la baax ak yooyu man Baye Zal dama la wax ne buuma baal plainte bi yóbbu ko Jérusalem soo ko yóbboo Jérusalem dinaa la fekk Jérusalem incha allah man baaluwuma mindeef ci situation bi su fekkee ne yow gendarme nga wala sa waajur yi ñoo moom gendarmerie dinaa ko xam lundi baaluwuma la. waaw man li ma bëggoon terminer mooy. Mhm. keroog aussi dama ko dégg muy wax ci waxu showbiz. Mhm. bay wax waxu musique xam mhm. défier aussi tamit tout le monde ci. monde musique bi. Mm-hmm. bàyyiwul kenn. Mm-hmm. xam nga monde musique bi dafa vaste ñi ci nekk dafa bari ay kilifaa nga ci ku nekk nga ci. Mm-hmm. the best man xawma sax the best xaw ma the pire. xam yow da nga nekk ci musique boo xamante ni yow atome nga ci bu fekkee nit ñi àdduna la musique bi àdduna la. yow atome nga ci. ndax kenn xamula la say musique ay chanson mbike lay composé pour xale yi dodo. damay ñëwaat ci lu bàyyi waxoon sànq ne son majaay yi mu yor ci chaîne am. Mhm. son yooyu mën na ko supprimer baa mu privé ko xam nga son yooyu noonu moom bu ko supprimer. Mhm. vues yi ngay saa yi ci yi gañu ci son yi. Mhm. revenu lay ñëw. Euh, lépp lu mu ci am ci moom lay ñëw donc bu ko perte la mais sax suñu yoon nekk na ko supprimer xam nga na ko supprimer. ndax ay son mbikee la doon juyal majaay. dégg nga wax ji. bi mu jugee ci moom. ci moom Zebes ci boppam bi mu fa jugee. ci la commencé di dugg studio di ànd ak orchestre complet. Mhm. di répéter du jouer musique bu toog. Mhm. fii ñi nekk ci showbiz bi yëpp bu ñu dégloo temps yi musique dañuy xam ni musique mbëkk yi mu doon jouer ak musique bi muy jouer léegi ute na. Mhm. kon point boobu dama ko ci doon souligner. ak beneen point bi nga xamante nii danga toog nag di défier Baye li tax point boobu ma ciy wax mooy. Baye man boog Cheikh bi ma ko xamee ba tey nekk aussi tamit ci showbiz bi c'est que ni nag man j'aime la visibilité. Mhm. man soobise bi nekk naa ci mais bugguma fës mhm. mais li mu def dafa ma metti xam nga ma metti ma mhm. Baye Zale man ba ma ko xamee ba tey musuma gis ku am audace toog ci biir ci ci soobise bi def interview wala émission wala fu mu mun munti doon defee ko parce que kenn yabu ko donc man mënuma concevoir nit koo xaman nii mooy li ma wax sànq yow da nga toog ci plateau primo di wax ne preuve yëpp a ngi sa téléphone après naa leen ko tegal ngeen déglu tegul benn preuve benn preuve la fi wane boo xamante ni dafa ne Sidy joué na son bi xam nga le 20 mars du du genre ak genre noonu. Mhm. te loolu les dates son modifiables gis nga ordinateur son. exemple bu wàccee 2013 boo ko créé 2013 wàccee ko ci ordinateur bi. Mhm. en 2013 comme mu tuddoon exemple son bi tuddoon France. Mhm. soo ko modi soo bàyyee ba 2020 nga modifié waat ko tuddee ko Sénégal. bu doon ba muy tudd France en 2013 c'était à 19 heures pile soo ko tuddewaatee Sénégal tamit 19 heures pile boobu lay nekkaat te même date ba lay nekkaat antérieure ba du mos a changé. Hmm. tur bi rek mooy changé. point boobu dama ko ci doon yokk. encore une fois damay damay damay damay ñëwaat man xaw ma ni son demee sama yoon nekkul ci son. Mm-hmm. xaw ma ko moom son bi moom mën na koo moom booy bi mën na koo moom problème mm-hmm. yooyu yëpp ñoom seen problème la man moom son mm-hmm. mais man li tax ma ciy wax mooy. domaine informel bi ci laay wax. Mm-hmm. parce que loolu laa maîtriser te aussi tamit loolu mooy sama job. Mm-hmm. te man Cheikh Sall man maa liggéeyaat li tax clip bi di daw. kon moom bu toogee ne seen tubaab yeeg dañoo am ay tubaab lii lii waxul dëgg man maa ko wax man sénégalais ñu dégg ko. bés mm-hmm. waxul dëgg. te preuve jox naa leen ko fi may envoyé YouTube di naan leen damay retirer sama réclamation. ak fi YouTube di ma tontoo ne ma nous avons bien traité votre demande. à 18h24 te 18h24 boobu précis. ci la clip bu Sidi bi duggaat ci YouTube bi. sa liggéey la daal. kon moom bu mu toog ne. nii ak nii ak nii la demee. encore une fois aussi tamit damay terminer ci wax boo xamante ni da ko wax ne Baye dafa soxoree siidi wax wax boo xamante ni wax bu mhm. ñaaw la. Mhm. moom keroog ay propos am ku ko dégg. Mhm. waxu noonante la ci wax. noonante yi moom mooy day gën a dóorante sénégalais yi. ak Sidi ak Baye Zal. damay souligner benn parenthèse bu ndaw boo xamante ni récemment bi ma demee kër Sidi dañu ci doon waxtaan. waragul mat un mois. Mhm. jour boobu bi ma demee c'était la première fois ma toog ki ñuy wax Jules Tedanga. Mhm. Mhm. kooku mosuma koo sax xam jour boobu laa njëkk a moom. jour boobu dañuy waxtaan ma koy saluer de passage moom tamit Jules ak Pam Modou aussi mi ngi fi woon. ak Mbaye Tama ak ñeneen ak ñeneen. jour boobu dama fa souligner benn point ci diggante Sidi ak Baysal. parce que man ñoom ñaar dama nekkoon benn intervalle seen diggante. ndax su ma xamee jëmm ji ginnaaw yàlla Sidi moo tax. ma nekkoon intervalle seen seen diggante su ma sañoon ñoom ñaar du ñu am problème. Mm-hmm. même bu ñu amee problème sax su ma sañoon seen problème day arrangé wu. Mm-hmm. mais pas que ni que jour bi ñu toogee di waxtaan dama ne Sidi mu ne ma ma ne ko gis nga yow sa diggante ak Baye Dal xam moo ci nekk. Mm-hmm. ma ne ko yow da ngay toog ay nit wër la naan la Sidi. Baye Dal bugg la Baye Dal lii ak lii la la def Baye Dal lii ak lii la la def. ngay en Baye ma ne ko Baye tamit day toog ñu naan ko Sidi lii ak lii ak lii ak lii ak lii moom it mu lay gën a en. ma ne ko yéen ñaar bi ngeen bàyyantee ba tey musoo leen toog ngeen wéet ngeen waxtaan mosul am. est-ce que comprendre. Mhm. jour boobu Jules xam lu ma tontu ne ma Cheikh gis nga suba am na te juboo mën na am ñoom ñaar mën nañoo juboo mais mën na am. Mhm. mën nañoo juboo mën nañoo bañ a juboo man xaw ma ndax yàlla rekk a xam mhm. li xew suba man xawma ko. Mm-hmm. su ma jógee fii xaw ma boo xam dinaa fanaan xaw ma boo xam du fanaan dëgg mais gis nga àdduna boo ci nekkee da ngay wax wax boo xamante ni day boole ay nit mais pas luy gën a mm-hmm. féewale mm-hmm. bu mu toog ne Baye dafa soxoree siidi Baye Zale lii ak lii moom carrière u Sidi moom tay la ci te defagu ci dara loolu la dégg nga wax ji date yi mu fi sitee yëpp ginnaaw yàlla jëmm ji moo ko def album yi mu fi wax benn album la ak cinq bonu track moom amul lu mu ci liggéey moom mooy li ma la wax sànq moom ay son mbike lay tëgg kon man li may am pour wax ko mooy. Mhm. mënoo fay nekk nag yow. Mhm. correcto. sans mhm. comprendre. kenn nawu la. kenn xamul sa form yow nan nga mel correctement amoo taay bu normal. sans comprendre ngay mel ni nen bu am rasa ba pare bu nga sonal nit ñi si Sénégalais yi mënoo mënul nekk. man nag yow yaa doon défier Baye man Cheikh Sall en plein public man maa lay défier je baisse. sans comprendre man maay wax ak yow. dama bëgg nga correct nga réglé moom moo sénégalais moom moo nit ñi yow seytaane nga te satan nga te bu dee Sidi nag moom nit la dëgg-dëgg yow warul déglu yow say conseil ndax nit buy tas ay ay ay ay ay ay ay ni ay ay ay jotaay nga te da ngay yàqal di nag yow amoo Sidi dara loo ko mën a apporter lu positif ndax li ngay tëgg baaxul jéewoo benn instrumental bu baax yow aayoo Ibou Ndim nga doon àndal bëgg am ci moom buzz te ñu ñëpp xam nañ loolu Ibou Ndim au moins sax xam nañ ko ndax théâtre comédie bi muy def naw nañ ko ci respect nañ ko ci mais yow jëm nga def comédie jëm nga def musique yow lu nekk nga def nga ko pour ak génn mais kenn mënu laa xam buzz kenn du ko forcer. Hmm. liggéey da ngay bàyyi mu doxal boppam mu nekk lu naturel. nit ki da ngay correct quoi moo gën. Hmm. man loolu laa amoon pour wax ci te bu fekkee wax naa fi benn kàddu bu débordé maa ngi jéegul bu baax ci kàddu yi mhm. mais c'était juste loo xamante ni dama ko bëggoon génne pour wax ko rek mhm. te génne naa ko jërë jaajëf jaajëf Cheikh mi ngi lay jaajëfal bu baax jaajëfal naa aussi Baye Sall si leeral yi nga xamante ni indi ngeen ko ci xibaar yi wër réseaux sociaux yi bés yi ñeel li nga xamante ne ni mooy problème mu best Baye Sall indi la choc choc di Diop ba ci Prince Habib dëgg nañ leeral yu si indi yëpp gannaaw sorti ba nga xamante ne ni yi best def nañ ko donc à vous de juger ñu ngi leen di jaaj jaajëfal jox leen dig daje si yeneen i waxtaan.